ami internet euh, Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu koy defee bés bu nekk rek ñu fas yéeneen dëgtal xibaar yi li si gën a fës nag euh, dañ koy daal di tàmbale rek ak euh, bés bu démb bi nga xamante ni daanaka Ndakaaru Njaay wala sax Sénégal dootuñu ko fàtte fii. ndax kat coow yu bëri yu nga xamante ni judd na si coow li nga xamante ni sax moo dox si diggante kii nga xamante ni moo di Adji Sarr ak député bi wala sax ancien député bi nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ginnaaw nag ba nga xamante ni amoon na ab convocation bi nga xamante ni waroon na ko wuy ji ndiki démb loolee nag dafa mel ni sax mujjul antu ndax kat moom Ousmane Sonko daanaka dañ ko daal di def ni ko coppe daal koy yóbbu foofee nga xamante ni mooy sa section de recherche bu nekk foofee ca Colobane mu nekk nag lu doy waar ndax kat ndiki si suba si Ousmane Sonko moom gannaaw ba nga xamante ni génnoon na rek pour wuy ji euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa commissariat wala sax ñii di force de l'ordre yi ñoom dañ ko daal di tànnaloon ab yoon bi nga xamante ni foofee la war a jaar loolee nag jur ab coow lu bëree bëri foofee nga xamante ni mooy ca diggante fii nga xamante ni mooy kër Ousmane Sonko ak foofee di palais de justice loolee nag taxoon coow lu bëree daat ni mooy sa section de recherche ay coow yu bëri nag daat nay judd fii moom Ousmane Sonko sax gannaaw ba nga xamante ni rek xibaar yi nga xamante ni daat nañ koy jot gannaaw nangul woon a wuyu ñi nga xamante ñoo di enquêteurs yi ndax moom Ousmane Sonko amul benn yoon bu nga xamante ni rek wax na ak ñoom lu ñu sukkandikoo sax ba tey rek journal bi nga xamante ni moo di Libération gannaaw rek ñi nga xamante ni ñoo di avocat yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci wetam Ousmane Sonko waxul ak keneen ku dul ñoom ñooñee te lim leen wax rek mooy que ni dafay yomb ba tax na daal moom turam sax bañ koy laaj pour rek confirmer li nga xamante ni moo di identité moom Ousmane dafa daal di lànk tëdd si suuf amul benn question bi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko daal dina koy répondre ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi ci coow loolu sax la ñuy des ba tey ndax démb comme ni ko ñëpp nemme ko fii si Ndakaaru Njaay daanaka rek amul magasin wala sax station wala boutique boo xamante ni ñii di manifestants yi daal nañ koy bàyyi ndax kat bu nekkee am na ñoo xamante ni daal ay partisans Ousmane Sonko la ña si des moom xëy na rek dañuy raasub dem ndax kat loolee nga xamante ni moom la gis ay image yu bëri yoo xamante ni daanaka réseaux sociaux yi ak télévision yi ñoo ngi koy wane mooy que ni ñii nga xamante ni ñoo di manifestants yi dañoo daal di dugg ci ay boutique wala sax si ay station yooyu rek daal di dugg pour rek dindi li nga xamante ni daal moo fa nekkoon daanaka rek daanaka saccage lépp loo xamante ni rek ab magasin la bu nekk si mbedd yi rawatina nag li nga xamante ni moo di Auchan yi wala sax lépp lu nga xamante ne rek waa France dañ ko daal di moom tamu nekk fii si Sénégal euh, lii di manifestants yi daanaka ñoom daat nañ fay jaar daat kay saccagé loole nag yemul rek si Ndakaaru Ndiaye jël ndax foofee tamit ca Ziguinchor daanaka démb li ko dalee 18h euh, jàpp 22h xale yi ñoom dañoo daal di génn mag ndaw xale jigéen góor ñëpp rek daal di génn di amal app manifestation loolee sax taxoon ñu jàpp suñu bëree bëri ñoo xamante ni daal jamono ji ñu ñu téye foofee nga xamante ni mooy ca commissariat ba ci coow loolee sax la ñuy desandi ba tey rek daal di wax ci oto bu ministère de l' éducation nationale bi nga xamante ne ndiki démb euh, réseaux sociaux yi daal nañ ko si seen mu daal di ay nit ñu bëri nag daal di wax ni euh, nit yooyee nag mooy que ni nit ay nervi nga xamante ne daal ñooñee daat nañ koy jël pour rek tas disperse wala sax disperse ñi nga xamante ni ñoo di euh, àndandoo kii di Ousmane Sonko yi loolee nag dafa mel ni ñi nga xamante ñoom ñooy waa ministère ñoom daat nañ koy weddi ba tëdd si suuf ndax kat ñoom gannaaw ab communiqué boo nga xamante ni daat nañ koy amal ñoom li ñu daal di xamle mooy que ni oto boobee nekkul oto boo nga ni dañ ko daal di jël pour yóbbu ko ci manifestation yooyu xewoon ndiki démb foofee ca Ndakaaru jaay ndax kat ñoom li ñu daal di xamle mooy que ni oto boobee nag loole image boobee image bu yàgg la boo nga xamante ni si jamonoy inondation yi maanaam mbënd bi la woon ñoo ñooñee nag nekkoon ay agent yu nga xamante ni dañu leen jëloon rek pour yóbbu leen foofee nga xamante ni mooy ca lieu pour rek ñu amal ab secours pour ñooñee nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon foofee ca nekk ca mbënd ma loolee nag nekk lu doy waar lu nga xamante daal donte bu nekkee mën nañ ko gëm wala mënuñu ko gëm en tout cas ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy jegendaale kii di Mamadou Talla nekk ministre de l'éducation nationale ñoom nag daal nañuy weddi ba tëdd si suuf te ñoom sax ñu ngi artu nit ñi rek pour ñu bañ a tombe si manipulation yooyu suñu sukkandikoo ci ñoom mooy manipulation yi nga xamante ni daal ñii di àndandoo Ousmane Sonko yi ñoo ngi koy amal pour rek seetal seen deru euh, àndandoo. ba tey keneen ko nga xamante ni moom it daat nay weddi ba tëdd ci suuf moo di ki nga xamante ni moo di Gris griboro Gris nag nekk ab mbër boo nga xamante ni mu ngi yëngu foofee ca Fass. moom nag gannaaw ba xamante ni nee nañ ko kookee nga xamante moo di Gris Bordeaux dafa bokkoon si gros bras yi maanaam euh, nga xamante ni ñooy ay nervi yu nga xamante ni daal nañ koy utiliser ndiki démb pour rek jàkkaarloo ak affront ak euh, ñi nga xamante ni ñooy manifestants yi moom nag Gris Bordeaux ndiki démb moom xaarul sax pour daal di réagir ndax kat si page Facebook am moom daal na fay euh, génn daal di xam le ni kat loolee lu ko bett waaye lu ko métti la ndax kat moom jegewul amul benn yoon bu nga xamante ni daal jege na li nga xamante ni moo di manifestants yi ndax moom Gris sax gannaaw communiqué bu nga xamante ni daan na koy amal si page Facebook am mu ngi xam le ni kat manifesta yooyu manifestation yooyu gannaaw ba muy am mu ngi ko fekk fële nga xamante ni mooy ca tribunal bu Pikine moom ba tey rek di daal di métti loole loolee nga xamante ni daal ñu bëri daal ñu ngi koy daal di xamal ñu ko teg si deram moom Gris Bordeaux di ko naqarlu waaye nag mu ngi leeral carrément ni amul benn yoon bu nga xamante ni jege na wala mu laale si ñooñee Gris Bordeaux nag si fàttali moom moom mooy sax moo yor kàddu jeune lutteur yi nga xamante ni ñoo nekk en activité ci arrestation boobee sax la ñuy desandi ba tey daal di wax rek ci li nga xamante ni moo di génn bi nga xamante ni kii di maître Moussa Diop moom nag mi nga xamante ni moo fi nekkoon jiitu Dakaaru dem dikk moom nag daat nay génn wax ci li nga xamante ni daal mooy jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko ndiki démb kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom nag mi nga xamante ni moo fi nekkoon jiitu Dakar dem dikk daal daat nay xam daat nay métti ba pare naqaru nag lépp lu xamante ni daal dale na ci ndodd kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom maître Moussa Diop sax di xam ne ni kat lii nga xamante ni moo daal Ousmane Sonko Macky Sall daloon na ko gannaaw ba nga xamante ne daal convoqué woon nañ ko foofee nga xamante ne mooy sa section de recherche moom nag dafa damoon wuy ji te ànd ay jegeñaaleem yu yu nga xamante ne te teewul kii di maître Abdoulaye Wade moom terewu ko woon benn yoon mu ànd ak ñooñee nga ne ñoo di ay ñooñam xam ne ni kii di Idrissa Seck tamit euh, daloon na ko gannaaw ba nga xamante ni convoqué woon nañ ko si gannaaw ba nga xamante ni amoon na ay problème si chantier Thiès yooyee te teewul benn yoon rek ñoom ñoo ñoñal nañ leen wala sax ñu tere leen ñu jaar fu leen neex moom maître Moussa Diop sax di xam ne ni am na étranger yoo xamante ni ñoom dañ ko daal di woo di ko xamal ni kat Sénégal li muy dund jamono ji kenn xamu ko ndax du dictature te tamit nekkul démocratie ba tax na daal maître Moussa Diop mu ngi métti du loolu li nga xamante ni moom moo dal ci kii di usman Sonko moom nag muy xamal ni kii di Macky Sall daal li mu bëgg a def mu yowoo rek mu daal di xool leneen ndax kat loolee nga xamante ni moom la bëgg a fii si Sénégal du jaar fii nga xamante ni mooy ci réew mi nga xamante ni daal mooy pays de la teranga bii di Sénégal. ba tey keneen ku nga xamante ni moom it daat nay wax ci coow loole mu di Bougane Gueye Dany moom nga xamante ni mooy njiital gom sa bopp ba pare nag li nga xamante ni moo di directeur bu D-Media moom ma Bougane Gueye nag daat nay génn nit ki démb foofee nga xamante ni mooy ca télé boobee di naqarlu li nga xamante ni daal moom moo dal démb ci ci Ousmane Sonko moom nag ki mu joxoñ baaraamu tuuma du kenn ku dul préfet bi moom Bougane Gueye daal di xam ne ni kat moom préfet de Dakar boobee daal lépp lu ñuy jàkk moom mooy njàkk ndax kat moom amul benn yoon boo nga xamante ni daal respecté na nit ñi te Macky Sall moom it respecté wul ki nga xamante ne ñoo di sénégalais yi ñoom nag Bougane Gueye sax muy daal di xam ne ni li daal Ousmane Sonko du lenn rek lu dul euh, euh, kidnapping ba tax na daal moom muy woo Sénégal yëpp ñu daal di génn daal di li nga xamante ni moom la Sénégal di dund jamono ji moom Bougane Gueye sax doon xam ne ni lii du xeexu Ousmane sonk kese waaye xeexu képp ko nga xamante ni sénégalais nga te nekk fii si mim réew ba tey ci coow loolee la ñuy desandi sax ba tey daal di àddu wax ci li nga xamante ni sax moo di euh, recours bi nga xamante ni. ñii di euh, de opposition député opposition bi daal nañ koy déposé ndiki démb jamono joojee sax nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi doon wuy ji loolee nekk lu nga xamante ni duñu sukkandikoo si ñu nga xamante ni daal seen xam-xam màcc na si wàllum yoon ku si mel ni maître Dame Saloum moom nag daal di xamle ni lii nga xamante ni moo di euh, recours boobee gannaaw bu nga xamante ni conseil constitutionnel daal na koy nangu am day daal di suspendre lépp lu nga xamante ni décision la te jëloon ko foofee nga xamante ni mooy ca assemblée nationale ba tax na daal moom sax muy daal di xamle ni ko daal mu amul woon pour daal di wuyu ji foofee nga xamante ni mooy ca con juge bu con bu huitième cabinet bi moom sax muy daal di xam ne ni juge boobee amul woon pour daal di ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ndax kat ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, nga xamante ni mooy daal di firndeel ni ñoom loolee nga xamante ni moo di recours boobee jëloon nañ ko te dañ koy daal di jàngat jàngat sax tax ki nga xamante ni moo di maître Dame Sall xam le ni gannaaw jàngat boobee nag lépp lu nga xamante ni décision la te ñu jëloon ko foofee ca assemblée nationale ba tax na daal ñu bëri daal nañ jàpp ni euh, li nga xamante ni moo di nguurub Sénégal dañoo daal di jalgate yoonu ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ndax kat moom moomee ba tey lii nga xamante ni mooy immunité parlementaire am mu ngi ak euh, moom ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko sax la ñuy des ba tey ndax kat xam ngeen ni kii nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye nekk moomoon euh, li nga xamante ni mooy salon Sweet Beauté moom daal nañ koy déglu sax moom di ki démb moom ak Ousmane sax ñoo bokkoon même jour bi nga xamante ni moom lañ leen convoqué waaye nag moom mujjee nañ kaa déglu ki ko déglu nag di juge bu huitième cabinet ba tey di ki nga xamante ni moo di du Seck moom nag gannaaw ba nga xamante ni déglu na ko ba pare dañ ko daal di placé sous contrôle judiciaire moom mi nga xamante ni moom moom moomoon salon suite beauté moom nag liñ koy daal di toppe bokk na si li nga xamante ni daal mooy incitation à la débauche ak complicité de viol mu mel ni daal ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye nag jamono ji nekk na si ab njàqare lool ba tey rek duñu sukkandikoo sax si journal bi nga xamante mooy l'observateur ñoom nag li ñu daal xamle mooy que ni da ko daal di imposé mu daal euh, Sonko ak Adji Sarr ba tey moom it ñu koy daal tere benn mu daal euh, wax si li nga xamante daal mooy ci mbedd bi moom mi nga xamante moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moomee tamit terewaat nañ ko mu daal di exercer li nga xamante ni moo di métier maanaam daal samam boobee nga xamante ni fa lay dundee daal dañ ko daal di imposer mu daal koy tëj te nu amul benn yoon boo nga daal ab message war ko envoyé moom ba tey rek Ndeye Khady Ndiaye bi daal li ko daal di mooy que chaque vendredi mu daal ñëw foofee nga xamante mooy ca euh, wala sa tribunal ba pour rek signer ab dossier boo nga daal di firndeel li moom Ndeye Khady Ndiaye mu ngi si fii si biir euh, Sénégal mu mel ni daal Ndeye Khady Ndiaye dossier boobee nga xamante ni moom moo dox ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr ba tey ci coow loolee la ñuy des ba tey waxti waa CNRA waa CNRA nag ñoo ñee nga xamante ni ñoom ñooy waa conseil national de régulation de l'audiovisuel ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy xool ak di contrôler lépp lu nga xamante ni dañ koy daal di wax wala ñu koy wane ci télé yi ñoom naka ndikki démb coow loolee nga xamante ni moo doxoon si diggante euh, wala sax coow loolee doxoon si diggante ñi nga xamante ni ñoo di partisan Ousmane Sonko yi ak force de l'ordre yi ñoom nag dañ si daal di dugal seen loxo ndax kat ñoom li ñu daal di xam ne gannaaw ab communiqué bu nga xamante ni daal nañ koy bind daal di joxoñu baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Sen TV TV ak Walf Fadjri ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa 2STV di leen xamal ni ñoom ni ñuy wane information wala sax ni ñuy wane xibaar yooyee jaarul benn yoon yoon ba tax na daal ñoom sax ñuy artu yooyee teel di leen xam ni kat bu ñu jaarul si yoon dinañ daan daan tegi ay daan ba daan la ba sax ñoom li nga xamante ni moo di couper seen signal mën na si jaar. ñoom nag mu mel ni daal loole ñii nga xamante ni ñoom ñooy télévision yooyu tooguñu benn yoon ndax kat métti lu noonu nañ métti nañ ko lool ndax kat bokk na si ki nga xamante ni moo di Ahmed Aidara moom Ahmed Aidara sax daal di xam ne ni moom waa Sénégal ñoom wax loolu ñu loolu ñu bind noonee sax deuxième recours la boo xamante ni bind nañ ko ndax kat ñoom au début dañoo daal di yónni woon ab ndaw pour rek mu daal di dem coupé signalu li nga xamante ni moom mooy waa D-Média loolee nag nekk lu doy waar lu nga xamante ni sax gannaaw ki nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz moom nag nga xamante ni moom invité woon nañ ko ndiki démb foofee nga xamante ni mooy sa TFM nekkoon euh, émission boo xamante ni moo ngi ko doon def ak kii nga xamante ni moo di euh, Papa Ngagne Diagne pour si émission boobee sax nga xamante ni moo di faram fàcce moom nag ñaawlu na loolee ndax kat moom nee na ñii nga xamante ni ñoom ñooy waa Sénégal nañu daal di jaarale lépp si yoon ndax kat ñi nga xamante ni ñoo di journalistes yi daal seen liggéey la ñuy def ba tax daal amul benn yoon boo xamante ni li ñuy liggéeyee jaara jaara dina yoon ba tax na daal moom daal mu ngi woowaat ñooñee nga xamante ni ñoom ñooy waa CNRA ñu xool naka la ñuy euh, doxalee ñeneen ñu nga xamante ni wala sax keneen ko nga xamante ni moom jàppoon nañ ko ay bés yi ñu génn mu di Guy mari Sagna Guy mari Sagna nag gannaaw ay xibaar yoo nga xamante ni jot nañ ko moom nag foofee nga xamante ni mooy ca fañ ko téye dañ ko fa daal di summi ba mu set rek daat koy dugal ci euh, isolé ko loolee nag nekk lu ñaaw lu nga xamante ni daanaka waa frappe frappe euh, de waa frappe France dégage ñoom daal nañ koy dénoncé ndax kat ñoom gannaaw communiqué bu nga xamante ni daat nañ koy bind ñoom daat nañoo xam ne ni seen euh, membre boobee daal dañ ko daal di jàpp daat koy toroxal foofee nga xamante ni mooy ca Cap Manuel loolee nag nekk lu doy waar lu nga xamante ni daal loole waa FRAPP ñu ngi koy daal di dénoncé ba tax na daal ñoom lu ñu daal di xam na ni kat kii di seen euh, jegeñaale boobu ñu ngi koy daal di torturé foofee nga xamante ni mooy ca Cap Manuel ba tax na daal loolee ñoom daal ñu ngi artu artuñ lépp lu nga xamante ni ay autorité lañ te nekk fii nga xamante ni mooy si Sénégal pour rek ñu daal di amal wala sax dox loolee nga xamante ni daal moom la Guy Marius Sagna di dund ñu xool naka la ñuy def rek pour mu daal di génn ca yooyee ndax kat ñoom li ñu daal di xam le mooy que ne dañuy salfaañe yoonu ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna ba pare sax ñoom nee dañ koy toroxal ndax kat Guy Marius Sagna mag la te am te kilifa la te am na it ay njaboot ba tax na daal lépp lu nga xamante ni dañ koy def rek mënoon nañ ko jaarale si yoon moom nag gannaaw ba nga xamante ni directrice u cap maison d'arrêt bu Cap Manuel sax moom daat nay addu moom moom nga xamante ni mooy Khady Ndiatou Diouf Ndiouk moom sax daat nay xam ne ni daal nañu xam ne ni loole dëgg la ndax kat Guy Marius Sagna gannaaw ba xamante ni andi woon ko foofee ca prison boobee dafa ne dafa bañoon ñu daat leen sonal de menteur ak sàcckat tax na daal loolee sax taxoon kii nga xamante ni moom mooy directrice ba daal sàkk woon ñu daat koy yóbbu daal di teg mooy ko ba mu set ndax kat foofee li di def mooy que ne summi la ba nga dese sa culotte culotte boobee nag li ñu si jublu nag mooy bañ nga bañ a suicidé wu maanaam nga daal di xaru moo tax ñuy def loole waaye nag nee na kii di Guy Marius Sagna moom moo daal di summi boppam ba pare rek pour leen euh, taqal loole nag euh, am na wala déet waaye daal nañ daal di xam ne ni rek lii nga xamante ni daal mooy ak ak yelleefu doomu aadama daal dañ ko war di respecter fu ñu mënti euh, toll. ba tey rek ci coow loolu ñu wax sax ci convention des jeunes reporters ñoom nag ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllum tas xibaar yi taskatu xibaar yi ma xale yi nga xamante ni ñoom ñooy jeunes reporters yi ñoom gannaaw li nga xamante ni nag xew na démb ñoom nag ñoo ngi koy ñaawlu ndax kat kookee nga xamante ñoom ñoo ñi nga xamante ñoom ñooy nekk si terrain bi ñoom ñu ngi sàqu si li nga xamante ni daal ñoom ñooy directeur directeur télé yi ñu daal di dimbali seeni i euh, employé pour leen mën a protéger pour ñu xam rek naka la ñuy duggee foofee nga xamante ni mooy ca événement yu mel noonu li ko waral nag mooy que ni démb dafa am benn bu nga benn reporter wala benn caméraman xamante ni moom daanaka dañ ko daal di gaañ si tànk comme ni ngeen koy gisee nii si image mu nekk lu doy waar loo nga xamante ni démb la xewee foofee nga xamante ni mooy ca affrontement yi xewoon diggante ñii di partisan Ousmane Sonko yi ak ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi loolee sax tax ba ki nga xamante ni moo di président Abdoulaye Baldé moom moomee nga xamante ni moom moo moom moo jiite convention boobee di daal di sàqu rek si ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy euh, autorités yi wa wala sax ñii nga xamante ni ñoom ñooy directeur télévision yi ak rajo yi ñu daal di protéger seen ñi nga xamante ni ñooy say employé pour rek ñu mën di amal seen liggéey ni mu ko waree ñoom nag ñuy daal di ñaawt loolee li nga xamante ni mooy kaddu ki nga xamante ni mooy préfet bu Dakar bi nga xamante ni dinaa démb kàddam yooyu wër na Sénégal ndax kat moom gannaaw ba nga xamante ni daal ñii di taskatu xibaar ñu ngi doon amal seen liggéey moom nag ñu daal di gis ay image mu daal di xam ne ni kat ñii di force de l'ordre ordre dafa ne ñu chargé li nga ñoo di taskatu xibaar maanaam ñu tiré leen ay lacrymogène pour rek ñu daal tasaaroo loolee nag mu mel ni nekk na ñii di convention jeune reporter ñu ngi koy daal di sax képp koo xamante ku bokkul sax convention jeune reporter daal képp ku ni yaa ngi naqaru loolu ndax kat ñii di journalistes yi daf mu ñu lu dul rek daal tas a xibaar yi te joxe information yi pour rek leeral lépp lu nga xamante ni daal ñii di sénégalais yi war nañ ko xam loolee nag ñu di ñaan ñun ñi ñun ñi nga xamante ni ñoo di ñuy ñaax ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi pour rek ñu daal si jël ay décision ndax kàddu yooyee nekk na kàddu yoo xamante ni nekkul benn yoon lu nit mën a rafetlu ndax kat kookee moom moo mënoon na xam ni kat ñii di métier lii di journalisme daal métier journalisme métier la boo xamante ni doo daf leneen lu dul rek tas information yi maanaam xool li nga xamante ni moom moo xew di ko na daal mu du gannaaw euh, convention jeune reporter yi képp koo xamante ni journaliste la rek mu ngi daal di naqarlu loolee nga xamante ni moo xew démb foofee nga xamante ni mooy ca Ndakaaru Njaay euh, Jal Diop du ñu jugee ci coowal Ousmane Sonko ak Adji saar nag dañuy wax rek ci leneen daal di wax ci li nga xamante ni moo di pèlerinage de la Mecque maanaam ajub màq bi nga xamante nañ koy amal at bu jot gannaaw nag li nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus gane si woon àdduna bi depuis euh, at wi ñu génn maanaam 2020 2020 bi ñu génn rek ba taxoon sax euh, ñoom ñooñee nga xamante ñoo di autorités yi nekk foofee ci Arabie Saoudite réduire woon li nga xamante ni daal moo di ñooñee nga xamante ñoo waroon ñëw foofee pour euh, amal accub daaw daaw bi ak li nga xamante ni moo di umra bi gannaaw nag ba nga xamante ni responsable saoudien yi moom daal nañu jëlaat ab ndogal pour rek daal di amal aj bi nga xamante ni daal war na am ci bii nga xamante ni moom lañ dëgmal ñoom na li ñu daal di sàqu mooy que ni rek képp ko nga ni daal pèlerin nga war nga daal di maanaam war nga bëgg a képp ko nga xamante ni da ngaa war a ñëw foofee nga xamante ni mooy ca màq nga daal di amal li nga xamante ni moo di vaccin bi anti covid bi ndax ñoom li ñu daal di xam le mooy que ni vaccin boobee mooy première euh, arme bu nga xamante ni moom la ñu mën a def rek pour daal di xeex li nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus mbas moomee di coronavirus sax la ñuy daal di desandi ba tey daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy ay vaccin yu nga xamante ni président de la république Macky Sall daal na koy recevoir daat ni recevoir yëpp ay euh, art euh, AstraZeneca la maanaam yooyu nga xamante ni mooy initiative COVAX yi moom moomee nag ni ki démb la ko daal di recevoir moom président de la république Macky Sall sax di félicité wu si loolee ndax kat moom mu ngi daal di na daal di ñu daal di euh, euh, vacciner lépp loo nga xamante ni ñoo di population prioritaire yi nga xamante ni war nañu daal di laal loolee nga xamante ni mooy vaccin boobee pour xeex li nga xamante ni daal moo di mbas mi di coronavirus ci fàttali nag États-Unis moom daanaka daat nay apporté su tolloog 40 wala sax 4 milliards de dollars loolee nag mu daat koy def rek pour garantir li nga xamante ni daal mooy COVAX bi pour rek ñu daal di am li nga xamante ni moo di vaccin anti Covid 19 bi pour rek fii si biir réew mi di Sénégal moom nag di daal di moom ambassade euh, États-Unis bi sax daal di xam ne ni kat moom li ndiki euh, moom ñoom nag gaat nañ génne alal bu taqoo taqoo rek pour rek dimbale ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Afrique pour daal di xeex li nga xamante ni moo di mbas mii di coronavirus ci fàttali nag Sénégal moom. nit ki le 21 février daa doon recevoir lu tolloog 200 doses ba daal sax tàmbale li nga xamante ni moo di euh, vaccin yooyee waaye nag doses mu recevoir oon yii la ay doses chinois la mooy boobee nga xamante ni moo di Sinopharm bi

Sénégal ba tey nag wàññi nañ si lu tolloog 31 247 cas ci noonee nag faj nañ si lu tolloog 29 889 am na nag lu tolloog 898 décès maanaam nit yoo xamante ni daal nañu ñàkk seen bakkan jamono ji ñu wax ak nag lu tolloog 4 459 ñu ngi ñuy faj si lalu hôpital yi. lii nag mooy li gën li mooy li gënoon a fës si xibaar yi sax di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar te leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy information au réel.